mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu amati nañ kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Grand Yoff mbooloo seet si fi kenn koo xamante ni comme ni ma leen ko waxee woon rek wasaare làmb mu ngi fi pour champion yi nga xamante ni dañuy jog dugg ci làmb am lu ñu bëgg am lu ñu gëm ci làmb moo waral tey ñu seet si xale bii di naturel nga xamante ni mu ngi fii ci Grand Yoff mbooloo ñu ñëw seet si ko ngir waxtaan ak moom comme niñ koy defee ay mu nawle mu mbërram mbëri tey moo waral ñu seet si ko naturellement la ñu. ba Baye Djili ñu ngi lay ziar bu wéer a wéer waaw di rafetlu sa teewaay fii xam nga di rafetlu tamit sa caméraman bi teewaayam fii nii waaw ginnaaw bañ sante yàlla di julli si yonent bi ñu def lenn di lu di sant suñu waajur ndax bañ demee tey ba mun dara ñoom ñoo tax te ba dara dul dara ñoom la ginnaaw loolu ñu ngi sant sëñ Touba bu baax ndax ñu ñun dañoo bokk si waa kër sëñ Touba. dina jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul waaw di nuyu suñ waa écrit rawatina mbëri yi ñu ci fekk yëpp waa lii mooy Grand Yoff mbooloo ba déggee Grand Yoff mbooloo lii mooy Grand Yoff mbooloo depuis bañ dooree ba léegi ñun lii lañ xam xam nga ñëw booloo liggéey nekk si ginnaaw père ay miiru mu ñuy tàggat ak ginnaaw moor ak dirigeant yi fi nekk yëpp ñu ngi ziar ñëpp di ziar tamit suñu kër si ron moom moo ñu yor matin saal fële na le xam nga dindi waa Grand Yoff yëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rawatina xam nga zone 7B rawatina zone 4B xam nga ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di waa xaar yàlla bi nga xamante ne faraa yeewoo di gërëm ñëpp xam nga. rawatina ñi nga xamante ne tey jii nii dama bokk ñoom koñ su ma amee bës ñoom dañ ciy sonn di si daj lu ne. essayant yi dégg muy sama grand yi ku si mel ne Abdoul xam nga ay ñoon Sané ñoon Chef Sakho xam nga grand yëpp waa jotaayu koñ bi ak sama gars yi ñoon Léon ñoon Noppee ñoon Booba Seex ay Njool. kañ nga dugg ci arène. waa arène maa ngi ci dugg 2016. 2016 waaw 2016 laa commencé. njëkk bëre sa combat si laa njëkk bëre sama. koo bëree bëre woon nag benn mbër bu ñuy ne naati. naati. Mhm. caaro yi mais xaw ma caaro yi mbooloo la nekk xaw ma caaro yi azir. Hmm. Mhm. ñaata combat arène. waaw amagum naa quatre combats. Hmm. Hmm. deux victoires deux défaites. fi mu nii ci làmb. am na ci ñu bari dañuy jàpp ni làmb daal doon na loo xamante ne sport la waaye ku daanu rus wàllu làmb simple bi foo ci toll. waaw ah, làmb simple bi. Euh, tolloon naa si foo xamante ne dañ ko doon dem di ko bëree ndax ba ma koy bëree ba maayoon roog énergie jamono jooju noonu dañ doon pare entraînement xam nga toog ci écurie bi après dajaloo def benn gang buñ demee làmb sax dañuy dañuy laaxatu quoi dañ koy teglante dañuy bëgg kii bu ràññee fii ñu xaar ay cinq personnes rang keneen rang mun nañ doon ay sept personnes oui maa ngi rappelé am na benn mbapat bu neex bu amoon unité 10 mbapat boobu noonu demoon nañ ba mbër rek énergie rek ñoo ci desoon ay ñaari mbër ñoo ci desoon te mbër yooyu noonu écrit pas Birane Ndiaye nekkoon mais xam nga après affaire boobu dafa indi problème quoi lamb ji mujjul yegg sax dañu séddale mise bi oui mais. jamono boobu maa ngi doon pratiquer lamb simple mais par yenn saa dugg fii adresse ngoor ndax adresse ngoor jege na ma. lan moo gën a yokk ba nga ba nga nga dugg ci lamb lan lan nga gis rek bëgg ko ba tax nga doon bëgg a doon. waaw ñun xam nga ñun dañ dëkk si keppaaru terrain gaal gi nga de ba euh, euh, sos sokee koo xaar yàlla xam nga ñun munuñu munuñu munuñu lamb lamb munuñu ko munuñu si bañ a dugg quoi xam nga doon doon lu ndaw di dem di seetaani lamb xam nga. di yàgg topp dem terrain gaal di toog mbëri bu ñëwee ñu teel leen seen cumukaay duggu toog noonu lañ toppee lamb topp lamb topp lamb doon naa football nag football naa Iyaasi football naa Kadee sama koñ mais après ma jékki-jékki rek virusu làmb bi dugg ma rek ñu organisé woon benn mbapat koñ ba rek ma ñëw doon si foon yi rek xam nga daan rek gars na ma mais pourquoi pas mënoon nekk mbër affaire yooyu noonu xam nga ma ne leen si xam nga noonu lañ doon dem terrain sax guddi ñuy teg xaalis koñox koñ ñi ne mbër bii nii kii moom mun kii kii moo mun kii noonu lañ doon def di ñëw terrain dajaloo par la suite xam nga rek ba ma yàlla di ma si dimbale ma si am ay ndam kuñ ma daj kuñ ma booleel ma daan ko ba gaay na nii noonu ma commencé nekk si làmb ba kenn je te rappelle benn jour ñu dem benn chantier bañ demee benn chantier am benn grand bu ñuy ne ngunda ngunda defe naa Rock Énergie ñëpp ko xam moom defe sax si staff bi la bokk yi moom moo ma ne booy kaay ma jàpp sa loxo ma yóbbu la Rock Énergie moom ma téye yóbbu ma ba ci loxo Morlo ne ma booy bi dama bëgg nga téyel ma ko waaw looloo ma dugal ci làmb waaye. Euh, équipe bi nu ngeen fi nekkee sart euh, yi lan la ak lan ngeen fi nekke ak nu ngeen di préparer tout le temps da ngeen di contact wala daa am jour yi ngeen di contact ay ngeen di waaw instant yi ñu nii gars bañ jugee ci hivernal bu baax parce que mbër yëpp ñu ngi doon hivernal ñu ngi doon wàcc géej gi hivernal mais bañ hivernalee ba pare mais sart yi fii nii comme ni nga ko gisee nii père bu ñëwee xam nga lundi bi dañuy physique bu ñëwee dañuy physique mardi bi dañuy contact mercredi dañuy contact jeudi dañuy contact mardi mbékki vendredi ñu charge waaw ah, fii sart yi loolu la quoi bu ñëwee heure bi lañuy ñuy commencé contact ba dix-neuf heures et demie léeg-léeg day lëndam sax ñu nekk fii di contact. CNG bi ubbi na renouveler nga sa licence. waa renouvelé naa. oui. simple ak dóor bi wala dóor bi kese. waa renouvelé naa dóor bi rek laa renouvelé gum. Mm-hmm. kon baax na ñu ah. waa Rock Énergie moom li ma fa jëlee moom du lenn xam nga Zarko moom xam nga rek moom moo fa nekkoon après xam nga moom ñun fa lañ ko fekk sax man fa laa ko fekk fa la nekkoon xam nga yàlla dimbali ko moom année bi may ñëw Rock Énergie yàlla dimbali ko moom mu ñëw Grand Yoff voilà mais fin saison bi dafa saison bi dafa ba di jeex après moom beneen année bi man ak moom fa lañ fekkante moom beneen année bi nag mu yokk su ñëw Grand Yoff après noonu si la ma doon wax booy yow la moo tax mënoo ñëw Grand euh, Grand Yoff ma ne ko non bàyyi leen ma nekk Gumroog énergie xam nga noonu laa fa nekkee noonu laa fa nekkee xam nga mënu ma am combat daal ma ne xaaral ma ñëw Grand Yoff après si laa ñëwee Grand Yoff Grand Yoff je te rappelle maa ngi fi ñëw ay 2016 ba mu fi ñëw rek mu fi ñëw rek ñu jox ma combat waaw. làmb loo ci gis euh, mu ngi yokk wala mu ngi wàññi. waaw làmb léegi boo xoolee boo xool instant yi ñu nii làmb man dama ne man neexatul quoi waa man loolu laa wax parce que soo xoolee boo xool bu njëkk ba ay mbapat da doon am da nga doon jékki-jékki ñu ne parcelle am na mbapat bu mag mbapatu ñett fan. nga jékki-jékki ñu ne yoof tëgg na nga jékki-jékki ñu ne Pikine tëgg na foofu ay champion dañu fa doon génn quoi da doon jékki-jékki di dégg benn booy côté parcelle wala ngay dégg côté Pikine ngay dégg Grand Yoff nii xam nga. champion yi noonu lañ doon génnee léegi bu ñu demee ba xamante ne gox bi am na benn booy bu fa nekk gox bi am na benn booy bu fa nekk léegi ñooñu bu ñu ñoom lañuy ñuy boole ñu dem bëre arène ñu xool tamit foofu noonu ñan ñoo fa mën a génn ñooñu defe naa si nañuy nekkee di rampe di rampe di rampe ba ngay dégg ay turu champion mais léegi làmb léegi da wax diw ne kii duma ma kii kii ne du ma bëreex kële xam nga te loolu doxalul làmb quoi pour man pour man doxalul làmb làmb pour man nit ki boo leen bokkul écrit rek xam nga doo leen ay mbokk rek war ngeen mën a bëre quoi waaw parce que ñun làmb loolu la soxla parce que soo xoolee ba xool mag yu njëkk ya ancien gloire yi dañ doon dañ doon dañ doon bëree ay cinq fois seen biir parce que looloo tax ñu ne làmb mais làmb instant ñu toll nii koo wax day ne man du ma bëri kii wala kii maa ko raw loolu amul ci làmb làmb bu dee dëgg la yaa mun say morom mais pourquoi pas boo xoolee boo xoolee ay ñoon Balla Gaye ay ñoon Modou Lo ay ñoon isaapu yi bañ fi nekk seen kalaf yooyu noonu ak or kalaf ñoom dañ doon bëri ñoom ñëpp dañ doon bëri seen biir xam nga dañ doon bëre seen biir ba nga jékki-jékki nga gis ay ñaari champion génn wala ñetti champion génn mais léegi loolu amatul ci làmb soo xoolee ba xool làmb ji man ne sax làmb dafa rafle mbër waaw soo gisee ma ne làmb dafa rafle mbër làmb soo xoolee boo xool instant yi ñu toll nii dana dem ba boo jamono boo xamante ne làmb day sooxee parce que xam nga moo tax parce que champion yi ñoo bëreetul waaw yi bëreetuñu boo xoolee boo xool benn champion moo génn muy bi nga xamante ne ñëpp moom la ñuy coow jamono toll nii muy rëg-rëg te gis nga rëg-rëg gars ni ñu koy moytoo gars yi dañ koy moytu waaw di nuyu tamit champion yi fi nekk ku si mel ni mobile ay naan faal xam nga libidoor fii la newoon mais ren yàlla dafa dogal waa goxam soxla ko mu dem mais teewul fii lay tàggatee ay entraînement am yëpp di nuyu raquin waaw di nuyu gars yëpp waaw jaajëf kon xanaa. waaw man ñu ne sama kanam bëri na instant yi ñu toll ne ay mbay xaadaa booy yëpp dañu war a laale xam ku si mel ni tamit ay kii nu mu tudd booy bi nekk fii nii waaye booy bi nekk fii Ameth Lagrosse booy samay naataango lañu man ak ñoom kombaala la xam nga am na ñoo xamante ne daal war naa mën a bëreex ñoom ndax man man taamuma benn mbër man moom képp kuy sama morom làmb boole ñu rek war nañ mën a bëree mais bàyyi jili sànq dafa am lu ma doon wax lu am solo nag xam nga ñun moom ay mbër yu ndaw lañu quoi te dafa am ñu nekk suñu ginnaaw duñ jàppale. comme fi ma la doon wax fi may liggéeye nii man damay bëre di bool di liggéey si yaa ngi dégg ku si mel ni grand Félix ak monsieur François xam nga man ñooñu aw seen fay ndax su ma amee combat dañ ciy xaalis weex tal la ñuy génne jox ma du ma namm dara si ngi dégg di nuy personnel bi fay liggéeyee yëpp xam nga di ñëpp di nuy sama collègue de travail Zorom Afia xam nga Afia bu Baye Kara ñun ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu xam nga di nuyu ñu nekk si cuisine bi ku si mel ni Martin Adama. xam nga Martin Félix di nuy Blaise di nuy Robin di nuy tamit xam nga barman bi xam nga du ko dalee si Mansour Amadou di nuy Nelson xam nga di nuy Claude di nuy Mama di nuy ñoon germain xam nga di nuy Kati di nuy waale Khady ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa tandem ñëpp xam nga boobu loolu weesoo yow sax bëgg naa la invité ak sa caméraman bi ngeen ñëw tandem ngeen découvrir tandem parce que foofu noonu ku fa dugg xam nga boo fa duggee ba génn rek di nga xam ne ni ñii nii lu ñuy jaay lu am solo la waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa xaar yàlla bu baax a baax a baax man xaar yàlla laa dëkk xam nga aw seen fay di leen ne xoolal nañ ñëw jàppale naturel même bu dul leen di leen man seen doom laa mënu am lu leen gën rëy di nuyu waa jiboo bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa yoon bi di nuyu waa gaal gi di nuyu waa gaal gi di waa basos xaar yàlla bi ñëpp maa ngi leen di nuyu su limee rek damay juum di sama grand yi ñoon Abdoul waa jotaay koñ bi suñu waa groupe ñoom ñëpp xam nga ñooñ suñu waa jotaayu groupe ñoom ñëpp dañuy sonn damay am combat waa jospara bi ñëpp di nuyu ñoon Buuba di nuyu Babacar Faye mi ngi ba itali xam nga di nuyu di nuyu Jibisi di nuyu Aline Ndiaye di nuyu ku si mel ni tamit xam nga rek ñoon jaay na ba sama jigéen yu nekk foofu noonu maa ngi leen di nuyu bu baax ay sali ay minti gaay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ndax tamit bëgg boo gis yëgoo koy fay ndax tey ñoom ñi tey jii nii suñ ma su ma leen jàppee benn ñoom jàpp nañ ma fukk ndax ñoom dañuy sonn ci man waaw di nuyu sam benn jigéen bu nga xamante ne tey dañ koy ne awa awa Sadio moom day sonn ci man xam nga di nuyu sama tante yi ma nekkal ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ama seen fay parce que ñoom tam dañuy sonn ci man lépp lu ma bëgg dañ koy def waaye yen tam di leen gërëm bu baax a baax a baax ndax li yombul xam nga lii wane ne ni tey jii nii mbër yëpp ngeen fi nekkal ko waaw waaw wasaare moom wax dëgg yàlla moom man maa ngi leen di bàyyi xel bu baax baax a baax a baax damay dugg seen ci di seetaan bu baax a baax a baax wasaare moom gaayen xanaa ca kaw sa kanam rek wasaare moom ñaa ngi leen di ñaanal rek ngeen dem xam nga ba wasaare bi doon télé waaw partout nag waaw gars yi di leen suivre di leen bàyyi xel ci lépp rawatina xam nga yow mi nga xamante ne yaa fi teew bàyyi ji lii ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax xam nga di gërëm sa caméraman bi ñu leen incha bu baax waaw yombul li mooy grand mbooloo ah. jaajëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax dégg ngeen ko kon noonu lañ leen di tàggoo rek ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf.